amma baad ixwata alislaam ittaqu llaha wa atiicuuhu waskuruhu ala nicami yaqulu subhaana la in shakartum la azidannakum wa min macaani sukr qada qadaau nnicam ala martadaahu subhaana yaqulu sayyid ahmadul xadim fi hada sadat fa in takun aakila ris risqa llaahi wa anta fi kulli samaanin laahi walam tatub li talabi lgufraani mujtahidan fa daaxilu niiraani laa taakulanna abadan risqa al ilah fi kulli xiinin summa taabudu siwa bal aksiril amali lillahi l ahad miqdaara faqrika li awnihi abad wa amal li si dunya bi ma takunu tamkusu fiha ayuha alfatinu wa amal li uxra xadra ma tabqa xada fiha wa man xaalafa da la xarrada wa amal li naari lay xadra sabrika ala sidaari lxar allaw tuslaka ixwata al islam inna allaha subhanahu wa taala قد وفر لنا جميع جميع الأسباب المادية التي تعيننا على طاعته ووضح لنا طريق صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور ربنا ربي ربي ربي ربي أوصيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين mbokk yi ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonant bi sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam ajjuma yee weesu daa am loo xam ne moom lañ doon waxtaane mooy yoon wi nga xam ne sëriñ tubaa da ko rëdd ngir doomu aadama ju mu mën a doon ngir ñu man cee jaar mu doon ngir man cee am noflaayu adduna man cee am itam tale taxe ëllëg yoon wi nga xam ne nag mooy moom la suñ boroom rëdd te mooy sa mooy li nga xam ne ci lay wone sañ-sañu boppam moom la wone woon ak ci ci ajuma jooju ak nan lañ ci doxee ci biir ci yoon woowee nga xam ne moom la suñ borom rëdd mooy suñ borom bi nga xamee ne moom moo sañ ci ñun am na lu mu wanee ab sañ-sañam ci ñun loolee mu wanee ab sañ ci ñun nag nga xam ne mooy wane ne am na sañ-sañ ci ñun loola mooy diine yi lislaam ñu waxoon ne lislaam nag moom mooy jëpp diine ju suñ borom mas wàcce rek lislaam la xëy na nag jëf yi mën naa am ñu ca wuute waaye benn li ko taxoon a jóg diine yépp li leen tax a jóg mooy wonee suñ borom ne mooy suñ borom moo sañ ci ñun moo war a def ci ñun loola nag moom lañ moom la sëñ Tuubaa waxoon ne diin bi hudal islaami fa huwa diinu wallaahu yoxli man bihi ya diinu mooy boo bëggee nekk ci àdduna si te woo te wone bëgg a wone wone sañ xam ne moom la suñ borom sañ ci yow mooy lim lim wone li nga xam ne moom la wone sañ-sañam ci yow da koy da nga cey topp loola nag mooy lislaam lislaam nag ci yëg ci gaatal mooy diine ji nga xam ne moom la suñ borom mas a wàcce ju mën a doon rek lislaam la xëy na jëfin yi mën naa wuute waaye nag jenn waaye nag jenn jenn lislaam rek moo fi amoon ndax moom la suñ borom di wax ne wa ma umiru illa li yaabudullaha muxlisina lahu diina hunafa mboone woon nag sëñ Tuubaa nag diine jooju nga xam ne moom la suñ borom lii tax nga man caa am njariñam mooy li ngay jëf na yàlla rek tax jëfloo moo la woon ni nga koy ni nga koy jëfale kon moom lii tax nga am njariñ ci lim lay jëfloo mooy nga di ko jëf tam moom rek tax mu ne la nag doomu aadama day xam ne doomu aadama ku doye di la ndax yàlla moo xal boppam waxul xal insaanu fa léeg-léeg ay rëcc rëcc mën naa ñëw ci yow nga def lu bokkut ak li nga xam ne moom la suñ borom bëgg ci yow mu ne waaye nag suñu borom wutal na la bunt boo xam ne ci ngay jaar ba rëcc rëcc yooyu nga xam ne moom def def nga ko nga man caa nga nga man ci sa kaw ko nee na na nga jégglu suñu borom bu ko defee nag la ca teguwaat mooy na ngay góorgóorlu ci ndigal yi nga xam ne moom la sant rawatina nag yi nga xam ne lu rëy la ci moom muy julli juróom ndax ju dafa doon loo xam ne du wàcc benn doomu aadama bu la xasee war dootu la wàcc yeneen yi ci des yu ne léeg-léeg mën na laa bañ a war léeg-léeg mu wàcc la itam muy moo xam muy asaka moo xam muy dem màkka moo xam muy koor yenn yooyu yëpp léeg-léeg mën na laa wàcc waaye nag lii julli moom du wàcc kenn bu xasee war nit doomu adama doomu adama loolu moo tax itam suñu borom def ci ak yombal ba ni ko mënee rek la la la nga koy defee saa yoo saa saa yoo demee ba àgg ci foo xam ne tëlee nga ci ci ni ni la ko waxee defee ko ni nga ko mënee kon mu mel ni loo xam ne doo la wàcc mukk mu ne nag li nga xam ne nag la cay teguwaat booy loo xam ne dalay dalay da gaar ci sa àdduna li lay gaar ci sa àdduna nag nee na na nga am fulla ju toll ni comme ni sëñ Tuubaa waxe woon ne nit ki dafa war a am fulla am fayda fulla mooy saa yoo gisee saa ci lu baax wala saa yoo nekkee li lay ci sa àdduna nag nee na na nga am fulla ju toll comme ni sëñ Tuubaa waxe woon ne nit ki dafa war a am fulla am fayda gisee wala saa yoo nekkee ci dara ba nopp ca ba ba yàgg nga gis ca ab safaan nee na na am fulla ju toll ni bàyyi ko fa saa yoo noppee gis lu baax rek ci dara nee na nga am na nga am fulla ju toll ni bàyyi ko ak koo ca man di séen ak ku ca man di nekk yow waaye na nga ca nekk rek yow loolu mooy li nga xam ne moom la waxoon mooy kon loolu mooy li nga xam ne moo nuy woon yoon wi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa rëdd ngir bëgg doomu aadama ju man di doon mu topp ca mu doon lu koy jariñ benn ba ba bi nga xamee ne nag suñ borom sañal nañu ba am lu mu te loo xam ne moom la teg ci ñun ngir ngir wone ab sañ-sañam ci ñun dañoo manal itam manal gi nag mooy jox nañu lu tax ñu mën a jëfandikoo li nga xam ne moom la ñu sant ci ay xéewal ak rëdd aw yoon wu leer naññ woo xam ne da ko bindal boppam muy alxuraanu karim wàcce ko ci sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ñuy wan ne li ñuy wan ne nag alxuraan lu suñ borom rëddal boppam la moo di ne baat bi njëkk a wàcc rek xam nañ ne maanaam nit bu dee mooy wala wala doomu aadama ju mën a doon bu dee li ngay indi yaa ko indi sa bopp yaakaar naa baatu iqra la lay tekki ne kon yow yónni dañ la ko yónni waaye doonut loo xam ne sa waxi bopp la muy jàngal xam nañ ne jàng kañ koy defloo mooy lañ koy jàng lañ koy jàngaloo xamu ko ñu bëgg nag mu xam ko loola moom la yonent moom la alxuraan tàmbalee kon baat boobu li muy tekki mooy dana soññ ci xam-xam dana su danañu won itam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alxuraan yi nga xam ne moom la andi du ay waxam ndax bu doon ay waxam du duñ ko wax ne ko jàngal li ci teguwaat mooy kon bi nga xamee ne nag suñu borom sañal nañu ba noppi manal nañu bu la manalee xéewal yi nga xam ne moom la la jox nga xam ne mooy tax nga mën a def lim la nga mën a wone sañ-sañ bi nga xam ne moom la moom la teg ci sa kaw muy xéewal yi lay jàppale ci nga mën a taxaw taxawee sañ-sañ boobu nga xam ne moom la suñu borom teg ci yow xéewal yooyu da nga ko war a da nga cee war a sant suñu borom neen ndax mooy suñ borom moo wax ne boo ma santee day ma dolli la waaye bu fekkee ne nag danga xarab bala da ñàkk gis xéewal yi nga xam ne moom laa la jox xamal ne bu ëllëgee sama lu tar la kon kon loolu nag la sëñ Tuubaa tënk ci woy yi nga xam ne moom la wax mooy suñ suñ borom bu la joxee xéewal waroo koo jëfandikoo lu dul ci li nga xam ne moom moo ko gërëmloo li nga xam ne itam moom la bëgg ci yow waaye waru laa jox xéewal nga di ko jëfandikoo feneen fu bokkut ak fi nga xam ne moom la bëgg ci yow wala nga di wala nga di ko doxee lu bokkut ak ni nga xam ne moom la bëgg nga doxe ko loolu kon mooy sant mooy mooy sant suñ borom loolee cant googee nag boo ko deful mooy da nga koo xarab suñ borom nee na ku ko xarab ku nekk na xam ne bu ëllëgee maanaam maa ngi maa ngi koy xaare buggal moo xam ne mu tar la la in sakkatum la asidannakum wala in kafartum inna azabi la sadid loolu la wax won nañu sañ-sañ bi nga xam ne moom la suñ borom sañ ci ñun nan lañ ci war a doxe mooy faw nañuy jëf ngir yàlla rek képp te itam boole ci ab xam-xam boo xam ne moo nuy dimbale ci ñu xam li nga xam ne moom la bëgg suñ borom bëgg ci ñun boole boole boole ko di di jëfe loola boole ko jëfe xam-xam ba doo ko xam rek téye ko waaye danga ko war a jëfe ñaareel ba itam ñetteel ba itam mooy bi nga bi nga xamee di jëfe da nga caa war a boole ànd ak ay teggin ndax loola mooy tax jëf ji mën a sell nga mën caa am li nga xam ne moom nga ci yaakaar mu teguwaat mu teg ca nag kon bi nga xamee ne xam nañ ne suñ borom lii la sañ ci ñu te moo woon nañ woon nañ itam ne moonu ma moonu manal kon adduna sii nga xam ne moom nga nekk nan nga war a jëflanteeg moom wala nan nga fi war a def ndax ñett mbir rek moo am adduna mooy fi ngay jëfee alaxira mooy fa fa nga xam ne fa la ñuy fa la ñuy fayee te foofa moom suñ borom sañalu fa kenn ku dut ki nga xam ne moom la sañal foofa nag kon li nga xam ne moom nga war a def moo di suñ borom comme jox na la ay xéewal te yow waxtu wu nekk yaa ngi gën a yaa ngi gën di ittewu xéewal yi nga xam ne moom la ne jox nee na lay tax xéewal yooyu di gën di yokk nag mooy waxtu wu ne da nga koy def ci li nga xam ne moo gën a suñ borom te ndax te te te di gën di góorgóorlu waxtu wu nekk ndax xam nga ne ku lott nga ku soxla woo ndimbal te ku soxla woo ndimbal nga ku soxla ku la jàppale nga te loolu suñ borom moo la koy defal kon kala koy defal nag war ngaa def loo xam ne dana gërëm dana la gërëm loo ba di bay gën di yokk ci yow li ca teguwaat mooy moo di ne adduna sii nag nan nga fi war a doxe mooy adduna li nga fi doxe moo di ne nee na li fekk yaa ngi mën a yëngal ab cër na ngay jëf bul toog bul tëdd mukk bul bul doon ko bul doon ko ku sàggan waaye na ngay doon koo xam ne waxtu wu nekk li feeg yaa ngi ma ngay yëngal ab cër rek na ngay doon ab jëfkat nee na loolu ndax mooy tax comme adduna fii la ñuy jëfee te ñaari mbir dañu cee war mooy dañ fee war a wone dañ fee war a jaamu yàlla war cee defar suñu adduna te suñ borom waxunu lan lañu fiy dund koo xam ne nag da ngaa war a da am ñaari jëf yow war a def mooy war ngaa defar sa adduna war ngaa defar sa alaxira ci benn barab bii nga xam ne mooy adduna te kenn waxul la li ngay dund ñaata at lay doon kenn waxul la ñaata weer lay doon kenn xamut li ngay dund nu mu toll kon jullit benn jullit wërta am jot benn jullit wërta am jot dafa war a doon koo xam ne rek waxtu wu nekk na yëg ne am na responsabilité boo xam ne war na ko ndax daa war a defar addunaam war a defar àllaaxiram te loolu ñaari ñaari jëf yooyu bu ci ne dafa laaj lu rëy loo xam ne mu ne su munta ànd ak ak ak ak sàggan munta ànd ak ak ak ak njàkk farlu mu mu mu tegaat ci nag bi nga xamee ne adduna jeex na àllaaxira lañ jëmaat àllaaxira jooju ñu jëm nag mu ne la comme dafa doon loo xam ne moom dafa day des amul fu mu yem àdduna moom kenn ku ne xam naa ne am na fu mu yem ndax li la koy won mooy nit ku ne xam na ne am gis na ba tàyyi ñu nekk ci kaw àdduna am fu seenug yem kon ñu xam ne dundug ñëpp dana am foo xam ne fa lay yeme bu boobaa nag fañ jëm mooy àllaaxira àllaaxira joojee nga xam ne fa lañ jëm te mu doon loo xam ne moom du jeex ndax yàllaa ko waxal boppam kon nee moom li ngay def nan nan nga koy fàggule moo di ne jàppal ne maa ngi jëm foo xam ne du jeex kon naa gën a góorgóorlu ci jéem a yóbbu yóbbul boo xam ne moo may dimbale ba man man man faa nekk ni nga xam ni laa fa war a nekkee li ca teguwaat nag mooy boo demee addun boo demee àllaaxira ñaari mbir fa nekk mooy ajjana ak sawara mu ne la ah, sa sawara nan nga koy nan nga koy faggule wala nan nga koy bàyyee xel moo di ne comme suñ borom wan na ne àllaaxira day lu fu tàng la fu metti la foo xam ne itam doomu adama ju ne dana ko ti dana mën naa tiital doomu aadama ju nekk kon li ngay def mooy mettit woowee nga la nga ca mën a muñ ci aw mettit rek na doon loo xam ne moom nga ciy bàyyi waaye lépp loo xam ne mënoo koo muñ ci aw mettit ci at ci àllaaxira ci sawara woowee nee na kon loola war nga koo jéem a góorgóorlu ba mettit wa doo am ci yow ba ca teguwaat mooy kon alaxi alaxira mooy mooy bi njëkk mooy alaxira nag mu ne la comme dafa doon loo xam ne du jeex ba mukk kon li nga war a def mooy góorgóorlu ba yaa ngi kam yaa ngi jëm foo xam ne du jeex yóbbu yóbbu fa yóbbalu sa kéemtalaay kattan boo xam ne dana la fa mën a téye ba nga mën a ba nga mën faa nekk ci nekkin wu rafet sa war a nag comme moom itam fu metti la fu tar la te yaakaar naa ne kenn ku ne da ciy muslu te yàlla na ci suñ borom boori musal moom itam lii lay tey li lay tax a mën a mucc ci moom moo di ne la nga ca mën a muñ képp ci aw métit na doon loo xam ne moom nga moom nga koy moom nga cee ñàkk ñàkk fàggu waaye loo ca munta muñ lu nekk na nga ca góorgóorlu ba di di di jéem a di jéem a def ci musal yàlla nañu suñu borom taxawul boppam yàlla nañu suñu borom sàmmal boppam mel ni nag suñu borom dafa wàcc wàccoon ak doomu aadama ndax lépp loo xam ne moo ko war a mën a dox ci yoon wi nga xam ne moom la ko rëddal suñu borom defal na ko. jox na ko am xel mu di ko dimbale ci lim mën a xam li nga xam ne mooy lim ko sant jox na ko itam ab téere boo xam ne da ko wàcc ci yonant bu fekkoon ne dafa bàyyi doomu aadama yi rek kenn ku nekk di xalaat noo koy toppe kon yaakaar naa jaxasoo gi mën bari waaye nag ngir xalaat ngir loolee bañaam dafa wàcceel boppam ab téere boo xam ne kam ko wàcce ci moom sax bàyyiwu ko mu ñëw wax nu ni nga xam ne ni lañ bëggee waaye ni suñ borom bëggee rek lañ waxee waaye am sañ-sañu moom waxee waxee waxee waxee ni nga xam ne noonu la xalaate wala ni nga xam ne noonu la ko bëggee ñaareel ba itam mooy di bi mu bi nga xamee ne jox nañu kàttan jox nu am xel jox nu itam bu ñuy dimbandikoo wan jox nu ab téere boo xam ne ci la ñuy jaar ci téere boobee da ko wàcc ci koo xam ne moo nu koy jàngal te ke ñu koy jàngal ci ñun la bokk kon mu doon loo xam ne yaakaar naa ne jaar suñ borom wàcce naa ak ñun kon li des mooy ñun ñi nga xam ne ñoo ñooy ñooy ñooy jaami suñu borom nañ jéem a góorgóorlu ba li nga xam ne defal nañu ko ci ay xéewal ci jox nu xel mu mën a jëfandikoo jox nu kàttan goo xam ne ci lañ mën a taxaw ba mën a def li nga xam ne moom lañ bëgg a def wan nu wan nu itam nan lañ koy jaamoo kon nañ jéem góor góorgóorlu ba li nga xam ne moom la suñu borom bëgg ci ñun ñu di ñu di ci jéem ñu ci dox suñ kéemtalaay kattan mu mel ni kon lii buñ ko setantalee danañ xam ne Sëriñ Tuubaa rëdd na aw rëdd woo xam ne wu leer nañ ñi la ci doomu adama bu nekkee ci àdduna doomu aadama ju mën a doon mu mel ni ku wax ku ku mën a doon rek doomu kuy doomu aadama rek la waxal ci ci nan la ñu war a doxee ci kaw àdduna kon yàlla ñu suñ borom mi nga xam ne mooy borom tawféex te mooy ki nga xam ne moom mën a dimbale mu dimbaleen nu boppam ba li nga xam ne moom la suñ borom bëgg ci ñun ñu di ko doxee li nga xam ne moom la ñu li moom la ñu defal itam ñu mën koo njukkal ca loolee mu nuy defal te njukkal ga itam mooy lim nu defal ñu fexe ba jaarale ko ci li nga xam ne moom la bëgg loolu mooy loolu mooy mooy ndimbal li loolu mooy li nga xam ne mooy tax itam li nga xam ne moom la borom sa bëgg ci ñun ñu mën koo am liñ bëgg ci suñ borom itam ñun tam ñu mën koo am loolu moo ne kon yàlla nañu borom mi nga xam ne mooy mën a taxaw te moo mën a sàmm yàlla nañu sàmmal boppam yàlla nañu taxawal boppam yàlla nañu gën a xiir ci boppam ba nargannu ca ba duñ xalaat mukk lenn loo xam ne lu dul li ko gërëm loo la duñ def mukk itam lenn lu dul li ko gërëm loo ba li nga xam ne moom lañu dël ëllëg ñu man caa jot ci wu rafet ñu ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana la tusi xulubana baada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahab rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin